c'est des chasseurs dañu naan ni mu yoree réew mi baaxul mhm. dafa salfaañe les droits humains mhm. dafa salfaañe les les les droits de l'homme mhm. euh, dafa salfaañe euh, état de état de droit bi en plus de reproches qu'on lui fait euh, sur le mode de vie euh, des, des des des des Sénégalais et puis j'apprends ce, tout à l'heure euh, que ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye ñu arrêté woon ko pour un post Facebook léegi dañoo euh, dafa am concomitance entre euh, les chefs d'accusation yi ñu retenir contre Ousmane Sonko et yi ñu retenir euh, contre contre moom c'est-à-dire ñu jàpp nit euh, six mois huit mois après jékki-jékki est-ce que euh, amul ci dans ces reproches-là loo xam ne fondé na wala pour yow dara fondé aussi il a pris les décisions qu'il qu'il qu'il devait prendre Euh, le sort bi mu teg nit ñi c'est mérité ou pas. xam nga on parle de l'état est-ce que mës nga gis ku la wax kell est la limite du droit par rapport à la loi ak état boobu ci biir loolu yëpp lan lay signifier moo tax ma doon wax couloir de la justice cest à que nit ki su taxawee ci champ politique est-ce que moom appareil bi nga xamante ni moom lay conquérir xam na lan la président de la république day def lu bari loo xamante ni loolu la war a def ñëw naa fi ma ne dafa am lu ñuy wax les cinq murs de protection du président de la république am les cinq lois yi nga xam ne ñoo ko wër moom président de la république le droit dans tout ça da ngay gis avocat yi gis nga man su may xool avocat yi ñuy wax par rapport à leurs clients dafa mel ni les économistes yiy wax par rapport à la monnaie économistes yi gis nga niveau bi ñuy waxee par rapport à la monnaie c'est trop bas parce que dañuy bàyyi l'aspect géographique de la monnaie bàyyi l'aspect géopolitique de la monnaie bàyyi l'aspect sécuritaire de la monnaie bàyyi l'aspect politique de la monnaie ñëw di wax ci aspect économique bi te loolu moo si gën a ñàkk fayda juristes yi bu ñuy wax ils sont au niveau du droit alors que le droit est trop terre terre par rapport à la loi waxatuma ak par rapport à l'état ñi ñuy jàpp ni ñu ci bëri jàpp ñu leen parce que diw la wala diw la non 1962 gis nga li xew événement juin événement yi xew juin bi passé ak mars 2021 1962 lañ ko commencé orchestré am na kilifa bu mag si àdduna bi boo xam ne dafa bind Léopold Sédar Senghor di ko posé question léegi nag par rapport ak li ma doon wax naan les types de communication am na loo xam mënu ma ci egg mais gis nga si la benn organisation juddu Sénégal organisation boobu doon dem université Cheikh Anta di codifier ay chambre yu bëri pour ay étudiants sénégalais. organisation bi mu tudd. bugguma tudd seen mooy li may wax la limite qui doit protégé gis nga étudiants yooyu noonu yu ci bëri. mais ñoom ñoo nekk les cadres de Pastef ah si moo tax booy wax force occulte je comprenais ñëpp ñi nga xamante ni xamuñu lan la et c'est normal ñu bañ ko xam mais am na ñu bëri ñoo xamante ne xam nañ lan la c'est une organisation religieuse. bëgguma egg si domaine boobu. Hmm. mais li ma lay wax nii nguur gi xam nañ ko man loolu tax ma ne communication la vérité vient de la bouche du chef am na yu bëri yoo xamante ni waroon nañ taxaw ñu wax ak nit yi ne leen Sénégal si situation sangam ak sangam ak sangam la yow li nga bëgg a wax mooy euh, acte yi état euh, de par son bras séculier qu'est la qu'est la justice di poser ce sont des actes légitimes et fondés amul dérive amul dérapage amul calcul politique amul une volonté de de de d'imploser et de faire disparaitre une organisation boo xam ne Euh, politique boo xam ne elle peut menacer euh, leurs intérêts politiques organisation dafa laaxatu si ginnaaw politique rek mais organisation boobu moo nekk menace pour le Sénégal c'est ça le problème nit yi moo tax man la ay doomu Sénégal la ñuy gis. Pastef mais bien sûr ay pour le pour pour le doomu Sénégal la ñuy gis alors que derrière y a autre chose y une organisation beaucoup plus compliquée. mais c'est quoi cette organisation est-ce que xam nga est-ce que xam nga lan moo tax euh, Ousmane Sonko bañ ko jugé ba àtte ko ñu def blocus këram. la moo mm. tax yóbbuwuñu ko prison. la moo tax ñu def blocus ça c' est des choses qu'on ne dit pas à la télé. waaw mais waaw mais Dieye vous êtes pour nous parler aussi <laughs> ah. waa léegi xoolal. gis nga lii. est ce que sa position baax na Amadou waaw waaw waaw on gis nga état moo nekk nii damay jéem a schématiser rek par rapport ak espace bi may am léegi gis nga état bi dafay def nii léegi mu am cinq dimensions. dimension politique dimension apparente am dimension cachée am dimension sacrée am dimension spirituelle léegi nga cinq dimensions yi am cinq réalités léegi gis nga cinq réalités yi boo ñëwee ci les état bi si boppam hmm. dafa am quatre aspects dafa am aspect politique aspect science politique aspect ak aspect état science léegi gis nga politique bi ci boppam am cinq niveaux léegi nag cinquième niveau bi moom moo tudd la politique en tant que action de discours et de comportement électoral léegi niveau yi am huit profils léegi li intéressant mooy lii parce que fii la scène politique moo nekk nii léegi da ngay def nii ça c'est le pouvoir ça l'opposition la presse et la société civile fan la ñu nekk. mooy fii parce qu'ils sont fii da ngay am la liberté de la presse. Ah. liberté d'expression. Mm la démocratie la souveraineté l'indépendance léegi xoolal ni ngay def. le def gis nga espace yi benn espace deux trois fii c'est l'espace du droit fii c'est l'espace de la loi fii c'est l'espace de non-loi non-loi waaw fii espace de non-loi léegi nga espace de non-loi dafa am espace de droit espace de loi espace de loi et une zone de non-droit je commence à saisir voilà léegi fii nga am lu ñuy wax euh, la raison d' état léegi nga ñëw fii. à côté de la zone de non-droit. il y a la raison d' état raison d' cinq éléments ñoo nekk ci biir du ma citer cinq éléments yi léegi fii nga am homme d' état deuxième partie bi nga am politique ci dernier partie bi nag fii. Mhm. nga am politicien donc kan mooy politicien kan mooy homme politique kan mooy homme d' donc gis nga juriste bu ñuy wax fii lañ toll léegi fii c'est l'opinion moo tax man damay wax ne l'opinion dans les affaires de l'État n'est pas de la responsabilité mais c'est du politiquement acceptable dans le droit démocratique boo duggee ci mbiru État gis nga wax bi ngay wax ci mbedd mi sa biir kër si grand place et tout ça n'a rien à voir avec l'État État ñu bëri ñu ngi koy wut mais xamuñu lan la en réalité donc li c'est pour cent de l'appareil dama tracé nii parce que. aw ma li ma la bindal nii. okay. l'appareil est beaucoup plus compliqué que ça donc njiitu réew bi ngay wax noonu zone de non loi bii nii les quatre lois qui ñu qui protègent ci biti lañ nekk donc da nga gis ne il y a le droit au-dessus du droit il y a la sûreté au-dessus de la sûreté il y a la stabilité au-dessus de la stabilité il y la loi au-dessus de la loi il y la sécurité gis nga actuellement ci ban ci ban stade la ñu la ñu la la ñu nekk. depuis ci zone de non loi la ñu nekk depuis mille vingt et mhm. ci zone de non loi la ñu nekk. ci de non loi la ñu nekk. l' état du Sénégal est attaqué léegi état du Sénégal boobu ñi ko attaqué mooy infiltration yi ma doon wax te ñu ñëw naa fi ma ne les grandes puissances ils tiennent des réunions secrètes réunions secrètes yooyu noonu ñaari orientation la dafa am leurs intérêts ku ci nekk ci ñoom individuellement mais am. leurs intérêts yi nga xamante ni c'est sous forme de lobby loolu laay tuddee lobbying suivant un intérêt commun. bu dee bu dee pare nga bind nga toog comme ça ñu am. Ah, le le tableau euh, en en entier donc actuellement ñu ngi nekk dans une zone. zone de non loi de ah. donc le droit disparaît. Hmm. la loi disparaît. loi bi disparaître parce que loi bi cinq types de loi benn bi ci biir réew mi la quatre yi noonu ñoo nekk au-delà de nos frontières loo moo tax tey boo jëlee problème mu Sahel. ak sous région bi pour nga defar ko maquette bi dinaa la ko tracer fii dinaa la jox yenn esquisse mais lan moo ñu indi ci zone de non loi bi parce que àddina bi mooy tourné nga gis ne Sénégal tey benn pôle la boo xamante ni ressources yi fi nekk yépp tey li nga xam ne moo sos état parce que xaaral loolu tamit fa ma tracé ko kon dafa am le peuple mm-hmm. am les institutions am la république am l'état ba pare am la géographie léegi gis nga. la géographie ou la géopolitique. la géographie. Mm-hmm. la géographie ak le peuple. parce que fii état dafa am ñaari origine dafa am origine boo xamante si peuple bi la am origine boo xamante ni c'est à partir de la géographie léegi fii le militaire moo nekk fii civil bi fii la nekk loolu moo tax militaires yi du ñu génn mukk doo leen gis ñuy affiché wu ni parce que fi ñu nekk la. parce que militaires yi bu ñu génnee rek ça veut que y a des risques de menace sur l'intégrité territorial moo tax le coup d'état la légalité et la constitutionnalité d'un coup d'état se trouve dans la géographie parce que le pouvoir appartient à l'armée léegi nag civil yi dafa am lu ñu ignorer ci état mais militaires yi aussi dafa am lu ñu ignorer ci état moo tax damay wax ñu bëri ne leen les armées ne sont pas la solution à la tête de nos états militaires yi def coup d'état du solution parce que fii à partir de la géographie violence moo commencé à partir du peuple violence aussi moo commencé. léegi da ngay retourner sa première page bi ñu ñu ñu ñu ñu ñu décrypter loolu ba pare et cette deuxième partie euh, dinañu permettre ñu waxtaanee. Euh, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique avec euh, l'effusion des des des des coups d'État. Alors, qu'est-ce qui nous a amené euh, dans la zone de de de, de non-loi, c'est-à-dire aujourd'hui et, et et ça cadre un peu avec la situation que l'on vit. Mm-hmm. Nous, le peuple les citoyens moi en tant que journaliste la perception que j'ai c'est que j'ai il y a mhm. jàpp naa ne am na ñoo xam ne jàpp nañu leen euh, teguwul ci lu fonde mhm. suspicion la paranoïa la bu dem ba conduire nit ñi as ñuy fouler au au au pied mhm. euh, li nga xam ne moom mooy les fondamentaux de la loi respecté wuñu procédure yi euh, et, et, et beaucoup de citoyens dañuy jàpp ne parfois c'est politique par exemple quand on prend le numéro de PASTEF bi nga xam ne bu ñu doon wax numéro euh, plan B moom moo waroon nekk plan B ñu jël Sonko tëj ko ñu nit ñi di xalaat Basirou Diomaye Basirou Diomaye aujourd'hui ñu tëj ko ñu ne post Facebook la après plus tard ñu ne ñu euh, il connaît le même sort euh, que que que Ousmane Sonko ñun ñi nekk ci peuple bi on a du mal à à à suivre. Au Sénégal, quand on se retrouve avec plus de mille détenus, euh, dont une bonne partie appartenant à un parti politique, ñu ñi gëm liberté d'expression gëm droit gëm démocratie euh, mën nañu am problème donc zone de non loi bii nga xam ne j'ai l'impression que moom la ñuy dund tey lan moo ñu fi indi mooy li may wax cest à que adduna bi ci intérêt la dépare moo tax au niveau de la géographie violence bi fa am c'est une violence d'occupation léegi violence d'occupation boobu noonu moo dem ba indi ay géants moo tax la table de sécurité des Nations Unies lan moo tax moom ay membres permanents est ce qui fait que ñu nekk ay membres permanents parce que géographiquement ils sont bien assis donc géographie boobu da ngay tas lan moo tax géographiquement ils sont puissants parce que dañu xeex ba xam ne les forts qui sont restés bu ñu continuer di xeex sa va mener à la destruction ils se mis autour d'une table donc ñooñu ce des chefs de guerre léegi nag à partir de la géographie day am benn procédure moo tax ngay gis diplomatie géopolitique relations internationales géostratégie foofu ngay gisee ñoom ñëpp seen origine scientifique pal yi ñuy wax ci histoire nga dem jàng science politique ñu naan la géopolitique et cetera mais seen origine scientifique à partir du peuple aussi violence bi fa am mooy violence bi nga xamante ni tu nies le droit de l'autre à exister violence boobu nag ñu xam ne ñu sommes dans un espace boo xamante ni territoire bi ñu ñoo ko bokk kenn du dem donc nañu trouver consensus yoo xamante ni mooy tax ñu mën a nekk ñun ñëpp ku ci ne li nga bëgg def nga def ko li nga bëgg exprimer nga exprimer ko. da nga naan souvent l'état du on dit souvent que hmm. l'état du Sénégal est un état très fort bien assis c'est un état indéboulonnable comment est-ce qu'on peut avoir un état indéboulonnable état bi di toog di seetaan ba ñu conduire ko dans une situation boo xam ne dootul déglu droit dootul déglu loi dafay installer une zone de non-droit au risque de violer les droits élémentaires euh, des des des des l'État a quatre types de violence te man waxoon naa fii ne Sénégal am na loo xamante ni doon nañ ko nangu dootuñu ko nangu am na lu fi nekkoon dootu fi nekkati mooy li ma lay wax naan la courbe de progression et de métamorphose de l'État c'est-à-dire que dëkk bi day dox soo gisee ma wax ay dimension spirituelle dimension sacrée et wax naa la ne la tey les militaires ignorent les fondements de l'État ñu bëri dañoo foog ne parce que tu es militaire tu connais l'État non mais quelle est la partie de l'armée qui représente la dimension sacrée de l'État moo tax boo isee militaire yi def coup d'État la moo tax duñu summi seen tenue parce que dañuy nëbb ñett ils cachent leurs limites par rapport aux civils ils cachent leurs limites par rapport à l'appareil d'État ba pare ils cachent leurs limites par rapport au leadership parce que c'est plus difficile de se déshabiller pour aller à la conquête du pouvoir parce que bu dee pouvoir bi armée moo ko moom kon yow tey soxlawoo jël armée yi pour def coup d'état tu descends nga summeeku nga dem si seen politique bi mais limite yooyu noonu yëpp parce que da ngay gis civil bu nekk au pouvoir insécurité bi am ay Mali ay Niger et moo leen di pousser ñuy def coup d'état parce que les civils ne se sentent pas sécurité sauf que bu ñu defee coup d'état bi ba pare il se passe quoi il se passe rien du tout léegi nag boo ñëwee ci kaw Sénégal ci boppam dafa am lu bëri loo xamante ne daf ñu rëcc c'est-à-dire que dëkk bi dafa évoluer changé réalité yu bëri changé àddina bi di tourner léegi nag am yeneen situation yoo xamante ni loolu moo tax ma ne je n'ai pas compris tey appareil d'état bu Sénégal parce que am na loo xamante ni waroon nañ ko gis parce que ñun dañ nekk si biti di ko gis muy ñëw. waroon nañu gis kii am ni yëpp li xew événement mars 2021 événement juin yi nii. mars 2021 du Sénégal a été surpris. mais loolu moo c'est ça après on a accusé le le le général euh, Jean-Baptiste Tine de n'avoir pas apporté. il n'a rien fait la la la la riposte qu'il qu'il fait il n'a il rien fait. Ah moo tax bi nga ne ñu bëri loolu la ñuy wax l'État a été surpris mais ça c'est grave ici ñun dañoo toog ci biti man nee naa la ay carax laa sol yi la n'a rien fait. non deful daal parce que loolu c'est juste trouver quelqu'un boo xamante ni l'agneau du sacrifice voilà te gëmuma sax nee nañ dañ ko wàccee mais gëmuma ne loolu tax ñu wàccee ko non non non gëmuma voilà te am na yu bëri yoo xam ne comme li may wax am na yoo xam ne nit ñi dañ koy jël nii rek teg ko sur la place publique mais doo dégg kenn koo xamante ne dina génn apporter des éclaircissements ne lii wala mu ne lii loolu mooy problème bi mais état bu Sénégal <laughs> man damay togg ma ne mais ñun suñu état bi qu'est-ce qui se passe léegi finalement j'en suis arrivé que ñun on est dans l'obsolescence de l'appareil d'État appareil d'État bi dañ ko war a changer parce si suñu appareil d'État dañ ko war a def mais mais mais est-ce que exagéré wu ñu est-ce qu'on doit se retrouver dans une zone de. Ah, de de non-loi ban situation moo fi am. bu état du Sénégal mënul maîtriser bu war a tax ñu mel ni ku nekk ci état d'urgence sécuritaire. Euh, voilà on prend on embastit on balance. gis nga gis on embastit on balance à gis nga manifestation yi am Sénégal. Hmm. gis nga yàq yi ñu def yëpp. est-ce que Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne mosul am manifestation ba mars 2021 yàgg na am bu nekk am na fi lu ne def na fi est-ce que am nañ fi marche boo xam ne on a visé des institutions est-ce que am nañ fi marche boo xamante ni on a visé des édifices publics est-ce que am nañ fi manifestation xamante ni on a voulu attenter à la vie des gens di taal ay këru nit ciblé leen est-ce que loolu mës na fi am. Euh, mais dañ ko doon c'était de l'orchestration voilà lakk nañ fi kër maître Babou attaqué fi nañu euh, fi quelque kër kii mais c'est pas aller très loin et c'est pas aussi grave qu'en qu'en qu'en 2021 et en 2023 léegi nag ñun comme dañuy ñëw si médias yi wax dafa am loo xamante ni mën nañ koo wax ci suuf mais duñ ko wax ci kaw parce que c'est compliqué loolu laa wax c'est très compliqué mais mais mais lan mooy nouveauté bi nouveauté bi mooy parce que yàgg nañu casse yàgg nañu am ay conflits politiques euh, yàgg nañu am ay dissensions mais c'est nouveauté bi mooy lañoo rax. ñan ñoo ñu rax <laughs> ak nan nan lañ ñu raxee. <laughs> ay bukki yan bukki ñoo sàngoo de béy. <laughs> bu ñu génnee plateau bi daa quoi. non mais non non parce que man li ma li ma mën wax li ma mën wax yëpp wax naa ak si média yi yamuma foofu de. dem naa gis foog ngeen dimbali ñu xam nga Antoine bu génnee. nous parle de force occulte te du sori. non moo tax pourquoi bugg leen. moo tax même côté même côté non loolu loolu côté boobu noonu. man xaw ma ministre de l' intérieur xaw ma li muy wax force occulte xaw ma si ban fondement la ko teg je ne le fréquente pas boo gisee événement yi xew juin sortie bi police def mais police la police a raté sa sortie. waaw gis nga fii. Euh, fii dama wax institution mhm. wax institution de la République fii ma wax des institutions d'État la police est une institution d'État pourtant gendarmerie du institution d'État dans l'histoire de l'État da ngay gis la gendarmerie mais dans la science de l'État doo gis gendarmerie police ngay gis police moo ëpp doole ministère de l'Intérieur am na yu bëri yoo xamante ne man taxaw naa ma ne pourquoi les autorités militaires ñu génn ñu wax ak askan wi parce que boobu dem nañ ba li dugg suñu biir dugg na suñu biir police xam na ko gendarmerie xam na ko armée xam na ko ñooñu tey ñoo waroon taxaw wax ak nit yi te bu ñu waxoon nit ñu gëm leen parce que la mais lan ñu a wax mooy li ma xam nga man xam nga man maa ngi wax ne a été infiltré te gis naa ne ay comme li nga a beaucoup de gens qui m'ont interpellé xamuñ li ngay wax lan la mais après on a compris que tey lii di xew nii ce n'est pas qu'une simple manifestation politique am na lu bëri loo xam ne prouvé mën na mën na dëggal loolu noonu léegi man li may wax fi ma mën a yem foofu rek laa mën a yem tey du bokk ak koo xamante ni il est dans l'institution mu génn mën a wax ba egg yenn niveau yi man fi ma yem nii rek foofu laa mën a yem mënuma ko dépasser voilà loolu tax may wax la sànq. mais ñuy infiltrer lan la ñu bëgg. déstabiliser notre pays et le pouvoir religieux aussi détruire le pouvoir religieux. mais mais mais dans quelle fin. waaw dañuy dañuy dañuy def loolu de telle sorte état bu Sénégal. dafa am benn ligne de démarche bu mu am ligne de démarche boobu moo tax may wax sécurité ak stabilité parce que stabilité wu réew dafa dépendre ci lu bëri léegi nag grande puissance ni ñuy xeexee par rapport ak le positionnement de l'intérêt noonu la ñuy agiré Mali tey li tax ñu déstabiliser ko yooyu yëpp dafa am ay mbir yoo xam ne ñi nga jiite comprendre ñu ko tey bu ñu la waxoon dëgg-dëgg li xew Mali wala Niger da ngay tiit les médias n'en parlent pas parce que c'est c'est extraordinaire yàq nañ dëkk yooyu yaxet et donc dañu bëgg yàq Sénégal comme ils ont fait. pour le pétrole avec le le nee fii depuis bi ñu éliminé Idriss Déby bi ñu ko éliminé <laughs> ils ont fait du Sahel en couloir. mais est-ce que ñenn ci parce que bu ñu ko defee ils sont passés par des gens en interne est-ce que sax ñooñu xam nañu c'est quoi le projet final. moo tax Pastef am na ñu bëri ñu ci nekkoon mais da ngay xëy benn jour ñu génn parce que dañu dem bés bi ñu gis affaire yoo xamante ni ça n'a rien à voir avec la politique combien de gens ñoo bokk Pastef ne non lii bu doon projet politique kase ñun loolu moo ñu taxoon jóg mais dañoo dem bés bi gis ne non non am na leneen lu ci rax te lii ma lay wax nii ñu bëri xam nañ ko mais dama jàpp comme ni ma waxee. donc ñoom mm-hmm. bi ñu utiliser pour infiltrer réew mi c'est Pastef. Mm-hmm. c'est loolu ñëpp xam nañ ko. maintenant ce n'est plus un euh, secret. Euh, léegi nag boobu ñi ci bokk yëpp no on est plus là à parler de droit de justice et cetera justice dafa am justice dafa am fu mu yem mais état am na fu muy toll mais la loi la lay tegal te loi boobu noonu comme li may c'est au-delà de nos frontières c'est pour la stabilité wax naa la fii ne la ñun dañoo man dama génn armée mais état li ma def yëpp daf ma ko war a def c'est pour la sécurité des Sénégalais contre ma état contre ma lijjantiwu ma sax mais dafa am loo xam ne boo ko defee nga jëm ci benn yoon état day taxaw moo tax ma ne bu la mënee tëj dalay tëj su la mënee rey dalay rey su la mënee yàq dalay yàq. donc yow da ngay bokk ci ñuy bénir la dissolution de Pastef l'incarcération de de de Ousmane Sonko. nit kenn du ko yéene loo xamante ni baaxul man dem naa ci ñu bari ñoo xamante ni dañoo jege Ousmane Sonko depuis bu yàgg na leen wax leen ko na moytu lii ak lii ak lii ak lii parce que nga xam ne kii mi ngi agité wu am na lu bëri loo xam ne moom si boppam sax da ko umpale par rapport ak l'état sa état kenn boo taxawee si couloir de la justice ni ma ko expliqué. nga xam ne da ngay jàpp ne Macky Sall alors ko du moom c'est beaucoup plus compliqué que ça. donc aujourd'hui c'est pas Macky Sall qui agit. Hmm? même si c'est lui qui prend les décrets euh, de, de solution même si c'est le euh, parquet qui qui qui incarcère. Hmm. baatu état boobu noonu. état boobu soo ko jëlee c'est vrai baatu état boobu jëlee nga tas ko. mais da ngay gis ne que moo tax ñuy wax le chef de l'état man wax naa plusieurs fois ne Macky Sall c'est le président de la République mais le chef de l'état ak l'état bokkuñu il n'est moo tax moom day def li mu war a def il est le chef de l'état lan moo tax nag mu nekk chef de l'état boobu parce que état bu taxawee dafa am lu ñuy wax la forme d'incarnation unique forme d'incarnation unique boobu c'est physique day wàcc ci benn doomu aadama léegi doomu aadama boobu dafa am lu ñuy wax des formes d'expression forme d'expression boobu noonu moo indi ay magistrature armée police gendarmerie ils sont au nombre de sept après forme d'expression bi après ngay gis les formes de représentation ci ngay gisee nag institution yi yëpp originellement fan lañ jógee c'est ça le problème moo tax man la appareil bi la ñu dul tas di ko expliquer nit yi mais suñ ko doon expliquer di nga xam ne kii ñëw par voie électorale ba ñu fal ko opposé wul comme tu mais amal foo yam ak moom mais est-ce que